Euh, Ziguinchor parce que sànq rek ñu ngi ko doon dégg euh, mais su ko waxee lépp en direct amaana moom mooy nekk euh, lu daal di gën Claire Claire Dorsène dafa mel ni mi ngi ci ligne bi suñu tonton ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax waaye tamit di ko nuyu bu baax a baax tonton Claire Dor ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay lay nuyu téléspectateurs ak auditeurs yi suivre 313 digital yëpp. ñu ngi lay fay bu baax a baax. ñu ngi voilà jamono ji nii yaa ngi foofu noonu ca Ziguinchor lan nga ñu fa mën a wax jamono ji ak ambiance bi nga xam ne moo fa am balaa ñoo dem ci la nga xam ne moo xew foofu noonu ca tribunal de d'instance de Ziguinchor fii daal fi xew euh, jéggi jéggi na dayoo mhm. parce que audience publique la boo xam ne man tey jii ci suba dañ ma dañ ma refuser accès au tribunal xam nga te teguñu ko fenn un agent en civil ci biir tribunal bi laa jógee léegi léegi la audience yi war a reprendre parce que am na ñeenti avocat yoo xam ni plaidé guñu mhm. donc man dama génn tribunal bi ndax ay farata yu ma dab mais euh, ñoom dàmbooj ñu nga ñu ngi déglu ak ñoom Mamadou Lamine Diante mhm. ñu ngi ñu ngi déglu ba xam euh, fan la ñuy mujjee de toute façon lu ci mënti am ñun dinañ ko xam te Sénégalais yëpp dinañ ko xam mhm. waaye li waral lii rek moo njëkk nekk lu dul yoon parce que bu fekkee ni problème mu validité candidature wala présent ci liste électorale mhm. loolu c'est pas un fonctionnaire de l'administration qui s'en occupe kon waruñu woon toll sax ba un candidat di saisir du tribunal d'un recours pour ñu statuer ci validité euh, ci présence am ou non dans les listes électorales parce que comme ni ko ñëpp xamee liste électorale mënuñ si génnee nit lu dul décision de justice. Mm. Euh, Ousmane Sonko yàlla dafa ànd ak moom askanu Sénégal ànd ak moom. ok parce que depuis deux mille vingt et un ñu ngi koy traqué. Mm-hmm. pour euh, euh, viol ak menace de mort. ñu dem ba deux mille vingt ñu bàyyi leen ñoom kenn ak seen tribunal benn avocat plaidé mm-hmm. ñoom ak ñoom Adji Sarr ak seen i avocat ak ñoom Maître El Hadji Diouf ñoom ñëpp ak seen tribunal. ils n'ont pas pu asseoir le viol ni les menaces de mort ñoom dañ ko nii. mënuñu ñu ko topp pour viol mënuñu ko topp pour menace de mort. Mm-hmm. dès lors xam nga dañ ko waroon a bàyyi loolu moo gën a yenu maanaa. ok. Mm-hmm. mais ñu laxas ci benn délit corruption de la jeunesse boo xam ni ñëpp dañu dem di def recherche pour xam lu mu doon. Mm-hmm. ba ñu remonter à Mathusalem dans les temps anciens xam ni loo fo ca la ñuy njëkk mujjee condamné nit pour loolu. donc laxas ko ci deux ans yoo xam ni doyoon na pour invalider ko pour mu nekk candidat. yàlla ñëw ak procureur du parax parax ñëw jàpp ko pour vol de portable. waay garde corps bi ni euh, euh, gendarme bu jigéen bi plutôt ni garde corps bi moo foqati portable ak xam ne loolu du du du du du jàll. Mm-hmm. ñu ni léegi li mu fi waxoon deux mille vingt et ba léegi ñu ngi la koy toppee moom lañ lay jàpp. xam nga loolu ay caaxaan la. <laughs> léegi loolu nag. Mm-hmm. dafa ndërmeel contumace bi nga xam ne obtenir woon nañ ko ci deux ans de condamnation yi nga xam ne moom la ñu jëlee ci affaire Adji Sarr bi. au mm-hmm. détour de de ci monsieur bi laaj waaw. Euh, au au de du du donc seen deux ans yooyu. Mm-hmm. doon na tere Ousmane Sonko nekk candidat. waaye ñoom ñoo ko yàqal seen bopp parce que ñoo përëx përëxi jàpp ko pour vol de portable. xam ne sottiwul ñu ñu ci laxas ay yeneen affaire ok kon tey jii. Mm-hmm. mënuñu wekk fenn gannaaw bi ñu ko jàppee. ñu contumace bi daanu contumace bi daanu daanu na de plein droit article 307 ñu ko xamul woon léegi xam nañ ko juriste yi wax nañ ci. Mm-hmm. léegi ñoom nag lu leen neex nañu def. bu fekkee dañ fi bëgg a teg droit def lu leen neex. askan bi tam teg fi yoon def lu leen neex parce que euh, si nga nit ba perte sur toute la ligne mm-hmm. yow perte nga ci justice mënoo ko condamné pour viol mënoo ko condamné pour menace de mort te yàq nga deram euh, pendant plus de deux ans presque trois ans nga topp ci honorabilité nit di ko kaw ci kaw te yoon setal ko mm-hmm. léegi yow nga ñëpp nga ni foog nga jàpp ko pour autre cause maanaam corruption de la jeunesse boo xam ne kenn xamu ko loolu seen propre pexe bopp moo tax ma ne yàlla àndul ak ñoom fexe mu hmm. ndërmeelu ndax jàpp ngeen ko jàpp en plus même de la lettre de non acquiescement bi mu bind parce que loolu rek ndërmeeloon na euh, muy ñaari facteurs yoo xam ni dafa ndërmeeloon contumace parce que fi mu nekk nii hmm. code de procédure pénale moo fi nekk en son article 307 kon suñu yoon ci xalaatu Ismaïla Madior Fall wala procureur c'est la loi qui s'applique te contumace bi ça tombe de plein droit donc hmm. fan la benn fonctionnaire mën a sukkandiku pour ni du ma joxe liste de parrainage parce que kii nekkul électorale est que c'est le fonctionnaire de la direction générale des élections mhm. qui décide de la radiation ou de la présence ou non d'une personne dans les listes électorales ouais. même bu jotee ay instructions euh, warul doxee noonu mhm. parce que dafa am séparation la justice qui doit le dire dëgg la léegi nag bu ñu defee forcing mhm. mais le peuple les attendra au tournant parce que ñoom comme li may toujours erreur bi ñuy def moom ñoom dañuy considérer usman Sonko institut personnel pour tordre le bras aux Français okay. Sonko il est nombreux Ousmane Sonko mooy man yow ñeneen ñëpp ñi nga xam ne dañuy yaakaar ëllëg Sénégal nekk am beneen xar kanam mhm. am souveraineté am te yaakaaruñ ci lu dul Ousmane Sonko ñu tàggali ko ak système bi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi depuis les indépendances ba léegi te jëmalewuñu fenn fu baax mhm. yaakaar boobu ñoo ñu am yëpp nag ñoom gis ñu ko ñoom mennum Ousmane Sonko la ñu gis mhm. donc kooku nga xam ne ay sondage sondage c'est scientifique. Ouais. parce que ci statistique la jógee. Ouais. statistique pàcc la ci mathématique. Mm -hmm. sondage yëpp désigné nañu ko vainqueur au premier tour. Mm -hmm. euh, DG Walfadjri Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh Niass nee na am na présidence am na ko. Mm-hmm. waa Pastef am nañ ko. Mm-hmm. toutes les chancelleries maanaam ambassades yi nekk fii xam nañ ni. en cas d'élection Ousmane Sonko il gagne dès le premier tour te que loolu c' est des bases scientifiques mooy sondage. Mhm. du ay naatable. donc xam nga ñu xam loolu moo tax ñoom le système. nga xam ne man système sax dafa nekkoon lu flou ci man mais léegi dafa leer nañ. ok ñi nga xam ne def nañu seen dialogue national. Mhm. pour réhabiliter ñi nga xam ne yoon génne woon na leen ci processus électoral bi ba wàccee bare mu nombre de députés yi la mën a dispenser du parrainage à treize muy le nombre de députés de Taxawu. Mm-hmm. léegi loolu euh, euh, ñooñu mënuñu xumtoo ba boole ñi nga xam ne yoon tegg na leen. ba noppi ki nga xam ne moom mooy yaakaaru askan bi ñuy def tout pour jëfandikoo yoon. je mm. dis bien jëfandikoo yoon. ok pour tere ko mu bokk. loolu nag. Mm-hmm. askan bi la ñuy xañ seen droit d'expression. parce que ñi nga xam ne dañu compter ci Ousmane Sonko pour Sénégal ëllëg changé. te élection yi c'est pas dans cinq mois comme les gens le disent ñu ngi ci mois d'octobre mi-octobre xam nga lan moo des mhm. novembre décembre janvier février bokkul ci la ñuy campagne ci la ñuy voté dëgg la euh, euh, novembre décembre janvier moo des ñetti weer moo des léegi nga ne askanu lëmm mhm. nga xam ni foo romb yow Macky Sall wala mhm. ay nitam ñu yóoxu ko Sonko Sonko clameur populaire boobu mooy wane ni Sonko dafa am l'adhésion du peuple te sondage yi wane na ko. ok léegi kooku boo ko bëggee xañ mu bokk élection. Mhm. askan bi nga koy sëqal dootu ko sëqal Ousmane Sonko. Hmm. parce que toujours ma hmm. wax ko quand le peuple ne peut pas s'exprimer par voie de droit. Mhm. s'exprimer par d'autres voies et de droit. ñi nga xam ne dañu yaakaar ci Ousmane Sonko yëpp pour Sénégal changer xar kanam. boo leen exclure ci processus électoral bi. ils vont imposer leur volonté mm-hmm. et la volonté populaire mooy mooy mooy mooy mooy mooy féete kaw toujours le peuple aura toujours le dernier mot le peuple est souverain n'a le droit d'empêcher au peuple de de s'exprimer et d'exprimer son suffrage léegi ñoom ni ñu def ba fexe euh, euh, euh, Karim ak Khalifa ak ngeneen bokk ci élection yi mm-hmm. naka nga mën comprendre dynamique d'inclusion boobu ñu bëgg a def pour aussi jëfandikoo justice jëfandikoo armée jëfandikoo lépp. Mhm. pour que Ousmane Sonko bañ a bokk ci élection. tey jii naka la ñu mën a tolloo ci recours boo xam ne sur la base de l'article L29 du code électoral. dañu bëgg euh, euh, euh, dindi Ousmane Sonko du fichier électoral. alors que l'état de contumace amatul parce que jàpp nañ ko c'est plus un contumace moo tax. Mhm. xamuñu nu ñu koy notifier décision bi et puis il n'a pas reçu notification. kon man ba ma leen di wax ni Ousmane Sonko kenn génneewu ko ci list électorale yi. voilà ba tey jii histoire jox na ma dëgg parce que kenn génneewu ko ci list électorale yi parce que ci loolu la tribunal nekk di statuer léegi. voilà mais notification bi ñuy wax que ne jox nañ ko ko nag. nga ne. notification bi nga xam ne ñu ngi wax que notifié nañ Ousmane Sonko ne génne nañ ko ci liste électorale bi. waaw notification xam nga ñoom nee nañu préfecture lañ ko yóbbu xaw ma. waaw. mais Ousmane Sonko nekkul préfecture décision administrative individuelle la. Mm-hmm. l'intéressé nga koy notifier doo ko yóbbu préfecture doo ko yóbbu mairie doo ko yóbbu fen loolu day fekk koo xam ni dafa daw xamuñu fu mu nekk mais mu ngi seen loxo dañ ko ko mm-hmm. yóbbul mais buñ ko ko yóbbulee day nekk un troisième élément buy daaneel état de consommation ñoom dañu dañu jaaxle fi mu nekk nii seen mm-hmm. propre jeu daf leen darket ils sont prisonniers de leur propre jeu moo tax ma ni yàlla àndul ak ñoom askan bi tamit àndul ak ñoom xoolal audience publique fii Ziguinchor ñu barricade yoonu tribunal bi yëpp plaidoirie yi jeexagul sax ñu dégager population yi di leen tirer lacrymogène ba am na ci ay blessé ba yaa ngi mettre di taal par endroit. lan moo koy jar kon jamono ji manifestation dafa tàmbali foofu. nga ne. jamono ji manifestation bi dafa tàmbali foofu noonu. mais am na quelques accrochages ak ay échauffourées. ok. am na ay blessé. Mhm. donc évacué nañu booru tribunal bi kenn newutu fa les seules les femmes du bois sacré ñoo fa ñoo fa nekk parce que ñooñu mënuñu partout dans Ziguinchor mais les gens les, gens attendent la décision du tribunal. effectivement même bu ñu nekkul aux abords du tribunal ils sont dans leur quartier. Mm-hmm. di xaar di déglu donc léegi ñun ñu ngi xaar mais ak lu mënti am. Mm-hmm. nous les patriotes nañu xam ne ci wuure la ñu nekk wuure mooy jeu. ok président Macky troisième mandat la nankoon pression populaire tax mu yàbbi ko. Mm-hmm. bëggoon na reporter élection pression populaire tax mu yàbbi ko. waaye génn gu ci. parce que ñëpp xam nañ ni Amadou Ba mënul nekk président Sénégal. Mhm. yow sa koñ bu fa Amadou Ba euh, euh, demee élection. waaw kenn ku sampu ci koñ bi da koy gañe ku mën jeune bu mën a sampu ci koñ bi da koy gañe. ok boo Boye Diao mënul gañe Sénégal. Mhm. parce que Ziguinchor bii bu fi présenté woon. Mhm. keneen présenté wu Ziguinchor da koy gañe. ok parce que nit ñi lu bees la ñu bëgg leneen la ñu bëgg. kon ñoom Macky Sall ñi mu yor ñëpp kenn munu ci gañe léegi li mu bëgg mooy le 11 janvier. conseil constitutionnel génne liste bu Ousmane Sonko bokkut ñun loolu la ñuy xaar léegi nag waa conseil constitutionnel. waaw j'espère que ñoom am nañu maturité xam ni Macky Sall dootul président daanaka il il il gère euh, euh, un mandat ñoom bu ñu compromettre seen bopp ak seen avenir ci jël décision bu dëppoowul ak yoon pour tere Ousmane Sonko bokk. Mhm. ñoom ñoo fiy des ak askan bi Macky Sall dem na. j'espère que dinañu am la sagesse comme ni ñu leen di tuddee les sages. de dire le droit parce que le droit mooy mhm. la contumace est tombée de plein droit xam nga de plein droit sax ci logistique dafa am sens mooy mhm. nekkatul beneen tribunal moo ko bëgg a atte ñoom bu ñu ko bëggee génnee ci liste yi mais nañu baral seen atte ñu waat ko au moins kon ne waat ko mais tant que defuñu loolu mënuñu ko génnee ci liste bi te man li ma waxoon Ousmane mhm. Sonko génnewuñ ko ci liste électorale yi parce que décision boobu la ñu nekk di courir ah. ko notifié wuñ ko boo xoolee des mois avant fenoon nañ ci ni notifié nañ ko ni génnee nañ ko ci liste électorale yi pourquoi mu nekk débat aujourd'hui mooy li ñu njëkkoon wax du woon dëgg te waxoon naa leen du woon dëgg et je maintiens que il est dans les listes électorales il est éligible et électeur kon loolu dara dindeegu ko donc ñu ngi mhm. déglu ñoom euh, euh, lan la ñuy servir après nit ñi am nañu préjugé favorable ci ki nga xam ni moom mooy siégé mhm. parce que xamee nañ ko ci ñëpp mais avec ce régime là dara du ñu bett parce que ñoom dañuy tënk ay nit dañuy yàq dañuy yàq gor dañuy yàq ko kon ñu leen di xaar parce que combat bi du sax léegi ñoom nañ def leen neex et puis parrainage. waay parce que soxlawul parrainage. ok waay. parce que boo amee treize députés. Mhm. tu es dispensé de parrainage. parce que à deux fois treize députés ça veut dire que mën na. présenter ñaari candidats. mais parrainage c' est un acte politique et un acte de sondage. parce que ku nekk benn nit nga mën du parrainage mais Macky Sall loolu la ñu imposé. Mhm. donc Pastef daf ko utiliser comme tremplin politique pour dem vers les populations pour animation politique. parce que bu ñu deux millions de signatures de gens qui sont dans le fichier électoral. Mhm. loolu c' clair que c' est victoire aux chancelleries. Mhm. moo tax de parrainage. Okay. parce ku dem ci kër ni Ousmane Sonko laa bëgg pare ne da ngay am ay signature ak ay carte d'identité parce que ñëpp loolu la ñu bëgg askan bi yëpp loolu la ñu bëgg waaw yow nga ni loolu da nga koy contrer xoolal dafay sonn Macky Sall amatul dara amatul sax autorité kon patriotes yi nañu téye seen i carte d'identité ak seen i parrainage mhm. déglu seen i kilifa déglu seen i responsable bu heure bi bu jotee dinañ leen jox indication waaye ala kulli mhm. deux mille vingt quatre waxuma Macky de du nekk dans l' appareil d' état. moo tax mhm. may ñaax les cadres bu baax ñu ñu àndal politiquement. ñu xool bu baax ñu ñu ouvriral seen coalition. Mhm. ñu ñu tirer enseignement de leur compagnonnage avec Taxawu Sénégal avec Barthélemy Dias mhm. avec les gens du système. Okay. pour oser cheminer avec des gens neufs aux mains propres et aux convictions fortes ñooñu ñu ngi fii Sénégal. ñooñu ñoo leen dul mës a trahir parce que ñoo ñoo gëm projet bi ñoo ñoo gëm souveraineté nationale souveraineté économique souveraineté politique. Mhm. kon Pastef warul def gentleman agreement ak ñoo xam ne dafay yàlla nga accompagner accompagner ak ñoom. Mhm. parce que ñooñu ci seen biir. Euh, euh, yeewi askan bi mais ñi ci ëpp ils travaillent pour le système et c'est des produits du système. Mhm. boo jëlee photo. responsable yeewi askan bi rek di nga xam ñan ñoo ci nekk ci système bi wala ñu ci jógee. ak ñan ñoo ci nekk ay nit yu bees ñoo xam ne moom lañ ñoom la ñu yaakaar pour Sénégal u ëllëg. ok kon euh, le combat est déjà gagné. 2024 euh, askanu Sénégal dina recouvrer souveraineté mhm. à la kulli aal. parce que pression populaire bi am na kenn attanu ko askan bi day am ndam par force mënuñu ci dara. Mhm. mënuñu ci dara. Mhm. voilà mënuñu ci dara askan wi dee am ndam mais est que jàppoo que ni euh, Sonko wala ñi nga xam ne euh, waa Pastef sax lay wax de manière général dañoo piéger état du Sénégal parce que xalaatuñu woon que ni euh, dinañ doon dinañ dugal recours foofu noonu ca tribunal d'instance de Ziguinchor ba sax avocat de l'État yi ñu ngi xamle que ne dakaar maanaam fii ni tribunal d'instance de Dakar moo gën a compétent que tribunal d'instance bu Ziguinchor te fa lañ fii lañ ko war a indi parce que Ousmane Sonko fii la résidé mais pas Ziguinchor bañ koy wax noonu xalaatoon nañ ne Ousmane Sonko euh, fii nii lieu de travail la fi am bien vrai que am na fi kër mais bu ñu wax Ousmane Sonko Ziguinchor moo tax ñuy wax est-ce que jàppoo ni ab piège la boo xam ne Ousmane Sonko daf ko tëral euh, daf ko tegal euh, l'État du Sénégal. mais bien sûr c'est une bonne stratégie que d'amener ce dossier à Ziguinchor parce que après tout Ousmane Sonko c'est le maire de Ziguinchor. waaw ñu doo gis le maire d'une ville qu'on a prise en otage. Mm-hmm. donc loolu c'est une stratégie des avocats que je salue. Mm-hmm. ba noppi euh, je crois qu'il y aura moins d'influence négative dans ce tribunal-ci parce qu'il est petit fii tout le monde se connaît le droit sera dit on verra lan moo ci génn de toute façon ñun mënuñu wax dara tant que ñoom parewuñu li ñuy def. parce que lii warul woon jël temps bi c'est que y a une dizaine d'avocats qui sont en train de plaider loolu moo gën jël affaire yi mais nous on attend la décision. Mm -hmm. gens sont venus de Dakar pour pour teewee loolu xam nga. ñoom daam boo ñoom Maimouna Bousso ñoom ñëpp ñu ngi fi ñoom Mamadou Lamine Diante. effectivement moom laa xamee ci taal bi. man dama génn pour des urgences mais euh, je je reste connecté. Uh-huh. bu ci kanamee xam naa bu décision bi génnee après ñu commenté ko waxtaanaat ci. Uh-huh. voilà Mansour. voilà Clédor euh, ñu ngi lay. mais mais man benn maa ngi jégalu de dama nekk ci dara. dama dama gaare ci naaj bi pour pour pour répondre à vos questions léegi léegi tëkk leen daaneel leen dernière question. ok ok ok dernière question bi rek mooy euh, par rapport li ñu gis noonu ak ndaw ñi ak euh, femmes yi nga xam ne ñoo nekk ci bois sacré bi est-ce que euh, décision boo xamante ni favorable ak Ousmane Sonko bu dee jib na foofu est-ce que jàpp nga ne tawféex dina ci mujj wala boog itam buñ ko sañee waxee noonu jàmm dina ci mujj. waaw une décision négative. Mhm. day doon injustice parce que amuñu fu ñu mën a sukkandiku vraiment. pour radier Ousmane Sonko des listes électorales parce que notification ne lui a pas encore été faite malgré coow li ñu wax yëpp ñun li ñu dégg mooy yóbbu nañu notification du procureur mhm. notification bu ñu ko notifié Ousmane Sonko da koy signé euh, kii yóbbu nañ ko plutôt préfet mhm. bu ñu ko ko notifié moom da koy signé mhm. kon tey ji tribunal bu jëlee décision ni dañu radier euh, Ousmane Sonko ci liste électorale yi mooy reconnaître dafa reconnaître ni Ousmane Sonko est toujours en état de contumace article de droit la mën a référé wu pour motiver sa décision parce que décision de justice da nga koy motiver aussi da ngay def ay considérant nga viser ay dispositions de loi yu mm. clair selon article nangam nangam selon nangam nangam nangam nangam le tribunal xam nga mm. statuant en et cetera et cetera décide mais ci yan yan élément de référence juridique lay lay basé wu en dehors de du code de procédure pénale Et on n'est même plus dans le code pénal, on est dans la procédure pénale. Okay. Avocats yi c'est des procéduriers, c'est de grands procéduriers. Donc su dee droit kese la ñoom daanu nañ avant la lettre. Mm-hmm. Maintenant bu dee jaay doole la na mais les populations aussi duñ ko accepter. Okay. Les populations buñ ko accepter man daal li may bañ. Mhm. moo ñu xeexloo ñu léegi te xeex jotul. parce que jusqu'à l'heure où je vous parle ouais. Pastef amul problème mu présenter ay candidats Pastef am na deux fois treize députés donc mën na mën na jàllale deux fois deux candidats yoo xam ni kenn mënu leen téye par le parrainage Sonko mën na am deux deux millions de parrainage sax ñu ne ko parrainage bi baaxul am na doublon fii am na lii fii jaxase seen carte parce que ñoom ñoo yore seen système de contrôle des parrainages mm-hmm. alors léegi mm-hmm. na patriote yi toog xam ni mbir mi wure la leen ko waxee li fi xewoon ba ñu rey fi une centaine de personnes moo réglé problème yu bëri fi mu nekk moo tax Macky Sall génn ci troisième mandat bi moo tax mu génn ci repousser élection yi moo tax nerf yi sañatul pointé le nez ci biti. Mm-hmm. désormais on aura affaire qu'aux forces de l'ordre ok te forces de l'ordre yi majorité bi sont rangés du côté du peuple ils vivent ce que nous nous vivons Sénégal daal. Mm-hmm. ñaari régulateurs ñoo fi des. muy régulateur social bi gënoon mooy la justice mais Macky Sall ndërmeel na justice. léegi il ne reste que le peuple comme régulateur. Mm -hmm. et ok à bon entendeur sal. ok voilà merci beaucoup. Euh... tonton Clédor ñu ngi koy euh, jaajëfal bu baax a baax ci éclaircissement yu am solo yi nga xam ne daal dina koy indi moom nag euh, jamono ji euh, ma nga foofu noonu ca Ziguinchor comme ni mu ko xamlewee rek bëggoon na dem mais malheureusement. Euh, mujj ñu ko bàyyi mu euh, dugg te ñi nga xam ne dañoo taxawoon ci alentouru euh, tribunal d'instance de Ziguinchor ñoom ñëpp la ñu daal di dàq ñu daal di jóge foofule moo waral nag moom sori na li nga xam ne moom mooy tribunal bi mais nag information yi itamit comme ni ñu ko waxee mu ngi koy jot en temps réel comme ñi nga xam ñoo nekk fii tamit di ko jotee en temps réel foofu noonu ca Ziguinchor te dégg nañ bu baax a baax la nga xam ne wax na ko Ousmane Sonko amul problème mu parrainage ku ne xam ne ni am na 26 députés te treize députés la wax ne boo ko amee rek euh, jarutul ngay wuti li nga xam ne moom mooy parrainage maanaam treize députés yooyu buñ la parrainé rek ñu la parrainé rek da ngay daal di euh, mën a euh, bokk wala itam bu ñu demee conseil constitutionnel mën na la. mën na wax que ne mën nga bokk ci l'élection te Ousmane Sonko 26 euh, députés la daal di am kon 26 députés yooyu mën nañoo parrainer euh, deux candidats mais comme ni mu ko waxee parrainage citoyen yi dafa nekk lu am solo euh, parce que loolu tamit sondage la di nga xam fan la sénégalais yi teg di nga mën a gisanteeg sénégalais yi mën a wax ak ñoom mën a battre li nga xam ne